Souleymane vous un idéaliste te ci seen camp dafa am ñoo xam ne dañ nekk dans la pure politique nekkoo fi woon Souleymane. Ah, <laughs> nekkoo fi woon lu bari fekkee woo ko. nga yaakaar ne par une simple loi d'amnistie lépp mën na effacé dina effacé wu ci kayit bi de. xaw ma lu muy dogal depuis mais est-ce que lépp mën na effacé wu. par une simple loi d'amnistie. est-ce que niveau de division et de haine bi. entre les acteurs yeggul foo xam ne mënuñu ko effacer par une simple loi d'amnistie loolu mooy benn en votant une Même... loi d'amnistie après que plus de cent Sénégalais aient trouvé la mort en votant une loi d'amnistie après li xew fi yëpp est-ce que vous ne donnez pas l'impression aux Sénégalais finalement que les hommes politiques savent se jouer du peuple c'est-à-dire heure bu leen soobee ñu dajaloo waxtaan déggoo avancé xale yi dee seeni ndey ñu ngi jooy. Maymuna 1945 bi France génne ci guerre bi xam nga ñaata nit lañu waroon a juger pour collaboration quarante cinq deux cinquante mille personnes cinquante gis nga lu tax affaire fonctionnaire statut di fonctionnaire mu am. biñ paree de Gaulle en 1946 dañu gis ne que France 200000 fonctionnaires français dañu collaborer ak nazi yi di arrêter ay nit di leen yóbbu di rey ay nit ñu ne naka lañ mën a créer sécuriser le corps ba nga xam ni doo duñu dañuy nekk à l'abri dootuñu nekk sous l'influence de quelqu'un mooy ñu créer corps boo xam ne seen avancement seen nekkin seen salaire ak seen liggéey dañ koy protéger ba dootu keneen dootu ci mën a def daal bëgg dëkk man dara mooy la mooy mooy mooy boo duggee rek ñu amb day nekk embauche à vie mooy lu baree bari mooy l' avancement automatique mooy lu bare bari mais deux cent cinquante millions dañu dem ba gis ne que suñu leen naree pini ñoom ñëpp du ñu xaj ci kaso yi y avait des exécutions sommaires tous les jours dangay gis ku xool nit rek mu ne ah waaw yow yow léeg-léeg nit ah, wala ku jigéen sax koo xam ne dafa mas a am dafa mas a nopp wenn <laughs> alma wala dara ñu jàpp ko rey ko bi ñu gisee ni mënut dem dañu voté une loi d'amnistie réhabiliter tout le monde ñu amnistier les faits et vous pensez au Sénégal jox naa la exemple yi Rwanda mënoon naa laa jox yeneen exemple ak yeneen exemple ak yeneen exemple ci yeneen dëkk y a des qui ont vécu fii li fi xew ci at yi dëgg la metti na ay bakkan rot na ci ay nit dee nañu ci dëgg la metti na lool te xam naa ni pour ñu bari dina metti am ñoo xam ne bu doon seen sago dañuy jàmmarloo xare reyante mais yonent bi sax daf ñoo jàngal ki nga xam ne moom la ñuy woowee xeeju lislaam nga xam ne mooy personnalité bu gën a am importance ci saaba yonent bi Khalid ibn al la tudd xaw naa rey yonent bi ba saaba ne yonent bi dee na dóor ko épée ci xare Uhud xaw koo rey dafa mujj jubóog yonent bi ànd ak yonent bi ba yonent bi waxal ci boppam mu ne daaw ñëw gañe xare yu bari waaye bi Khalid ibn al ñëwee ci ñun ba léegi dañuy gañe xare même il faut ñu jànge de l'histoire il faut ñu jànge ci suñu diine il faut ñu jànge ci suñu lu luñ suñu maam yi jàngal jàmm gën du waxu kese dañu def jàmm man maa dàqoon a xeex man xeex rek xuloo xeex hmm. mais su fekkente ne yàlla dafa am ñu mu jagleel tuuti xalaat saxal ci ñoom un esprit de paix man je ne connais pas Ousmane je suis à Paris je suis bien à Paris très bien mais bu problème amee rek damay bàyyi lu may def ñoom parce que dama jot waxtaan ak yeneen ambassadeur yeneen réew. ma gis la ak lu ñuy dund may mun a ñun yàlla daf nu dimbali yàlla daf nu dimbali yàlla daf nu dimbali suturaal le 2 am ñu commencé yëkkati baat naan Macky Sall amatul légitimité mënatul jiite réew mi te ca wàll ba mu am une prorogation conjoncturelle et ponctuelle de son mandat avec la modification intervenue Euh, dans de dans l'article 31 ñu ne le président il reste en fonction jusqu'à la passation de service mu am ñuy ruumandaat transition mu am ñeneen ñu ne gannaaw ndox tuur na an bàkka des comme Macky Sall yegg na ba fii dañ ko bàyyi mu wéyal liggéeyam warul abandonner réew mi à partir du 2 avril il doit continuer jusqu'au terme final. mais man. la mooy la bonne option pour toi. man su dem mënoon na ne. lan nga jàpp ne Macky Sall loolu la def. su dem mënoon ne su fekkonte ne jàmmu Sénégal ci loolu rek la dépendre kon dina dem Macky pare na yàgg na. mais lan nga jàpp ne. dafa waxaan dinaa dinaa ci tontu dafa préparé boppam bu yàgg. mais gis nga responsabilité am la éviter crise institutionnelle dugal ko ci beneen crise xam nga mooy lan loi bi dafa wax ne su président bàyyee en cas de vacances le président de l'Assemblée nationale mooy ñëw. pour quatre-vingt-dix jours. waaw mais pour quatre-vingt-dix jours kese waaye léegi bu ñëwee pour quatre-vingt-dix jours kese te ñu war def élection de quinze décembre nu ñuy dem. non dañ ne il doit organiser l'élection Maïmouna la loi bi ñu voté sa conséquence immédiate c'est que tout le processus électoral dañ ko war a reprendre tout le processus dañ ko war a reprendre convocation euh, tout tout tout dañ ko war a reprendre loolu la am comme conséquence immédiate loolu mën nañ koo def ci ñett ci quatre-vingt-dix jours mais yow la nga jàpp ne loolu la bu ñu buggee waxante dëgg